dalleen ak jàmm mbir yaa ngay gën a doy waar gannaaw ba nga xamee ne nag démb képp la ñu jàppoon kii di Cheikh Bara Ndiaye loolu mel nag daal di nay amaat bésu tey bii nii nga xam ne nag dañoo jàpp kii di maître Ngagne Demba Touré bokk nag si ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef moom maître Ngagne Demba Touré nañ information léegi nii di wax que ne nag dañu ko arrêté. xamaguñu nag ana lañ lañ koy toppee lan moo tax ñu arrêté ko ba ñu jotee woon sax ay information yu wax ka ne nag moom mii di maître Ngagne Demba Touré benn rakkam daal waxoon nañ ne sax daal dinañ koy téewoon si manifestation yi nga xam ne nag amoon na waaye nag tey jii nag moom maître Ngagne Demba Touré euh, police daal dina koy teet loxo dinañ leen toppal information bi ana fan lay mujjee moom lan lan koy toppee ba tax ñu daal di koy jàpp moom Maître Ngagne Demba Touré ñu ñaan jàmm daal di wàcc suñu réew Sénégal ndax Sénégal kat jàmm képp moo fi xàcc